la ilaha la la la ilaha la la Cheikh Laay rek dafa ñëw indi ab liggéeyam sëñ Fallou Mbacké muy liggéey boo xam ne nag yàgg na koo liggéey waaye fa mu toll woon daaw sëñ Fallou boo génnee ba gis ko suñu Fallou sa xol dina seet lii rek la suñu Amdi Fall bëgg lii rek la doon ñaan waaye yow mii di seen kilifa di kilifa kër gi di jëwal ñi kër gi lii rek nga doon ñaan ñi fi génne tey bare na lool kenn ku nekk alim fi indi waaye sëñ Ablaye day daa jub ne mbooloo mi fii ma jëm samay nawle laa fay dajeel ñi ma bokkal sëriñ bi te omalu dul yéen ca liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñu ñëpp ñoo bokkoon sëñ xalifa da ngeen ko noppee gis di ma ko xoole waaye maa yéen ñoo ci bokk yem ñun ñëpp suñu xalifa mooy suñu baay mooy suñu sëriñ mbooloo nag bu ñu àndee faaw ñu am njiit ba dëgg du mën a nekk ci ñoom loolu waral ñoom ñëpp ñu àndandoo di ko xool ba ngeen daan xool sëriñ xalifa faal teg ko ci seen kanam lu am jox ko lu ne digal ñu def ko lu leen tere ñu bàyyi ko ci ñaanu yàlla sax nekk ci lu muy tere liggéey bi nag sëñ Fallou soo génnee ba gis ko. am na murid bu jooy jooy metti ci yoon wi ni ma yoon wi dëgg la la waxoon keroog yoon wi dëgg la ku xool nag yi sëñ Ablaay yii ku xool nag yi yii di nga xam ne yoon wi dëgg la sëñ Xalifa bàyyi woon fii tolluwul woon nii waaye sëñ Ablaay ku taxaw ci sa mbagg yaa suuf sa baay ci yaa ngi ci kaw mbagg sëñ Xalifa Fall moom sëñ Moodu benn kaw rek lay jëm waaye dara du ci deltu ginnaaw am nga fit nag am nga jom ci ñeme nga waaye liwtoo nga koo xam ni mhm. ku ma sa liwtoo moom moo la jàgg róo moo daaneel sëñ Mame Boye Lo mhm. moo daaneel waa Baye moo daaneel sëñ Aliou Diagne Kàdd moo daaneel sëñ Ibrahima Mbaye muy Cheikh Ibra Fall sa maam moom nga liwtool lépp a ngi fii nag mhm. sëñ Bay si la nee na ma lépp Cheikh Ibra fii ci biir kër gi Baye Amdi Fall mi mooy mooy Cheikh Ibra mooy moo tax wax naa ko ko léegi bi sëñ Cheikh Fall Baye góor doomam ñëwee def nii nga def yeesal ak njébbalam fab ab liggéeyam jox ko ma ne ko benn waaye moo ko wax ca marché Ocass ni ma sëñ Moussa waxal ma ko sëñ Amdi waa ji nee na sëñ Ablaye Cheikh Ibra Fall moo fi dellu si waat xéwal yi day dolli ku waat ku weddi lii woo ma baay waat Baye Amdi yaay Cheikh Ibra Fall dëgg la Cheikh Ibra Fall moo fi dellu si waat xéewal yëpp day doole ku waat ku weddi li mooma ma waat suñu am day Cheikh Ibra Fall la ko dala kër Cheikh Abdoulaat jaar biir marché Ocass kurlis bi moo ko yeesalaat suñu am day Cheikh Ibra Fall la ko dala kër Cheikh Abdoulaat jaar biir marché Ocass kàmb yee moo ko suulaat suñu am day Cheikh Ibra Fall la ko dala kër Cheikh Abdoulaat jaar biir marché Ocass ndogu yii moo ko yeesalaat suñu am day Cheikh Ibra Fall sëñ Cheikh jëmb daa ñëw fekk fi ceeb ni ni jeex na ndawal laay def ñamu Tuubaa ñu ni déet doom jegewu ko rakk jegewu ko nijaayam jegewu ko gisuñu baayam suñu saafaal gisuñu ndeyam soxna jëmb jóob waaye ndako yoonu dëgg la suñ see jëmb aj baar bi ba ñëpp xam ne añ na ko mu ne xaaral ma jox ko sëfoor bi sëñ Modou Mbenda sama moo daan dawale Seex Faal sama kon bàyyam di yor baar bi day dem nag ku amu fit bu yóbbaale la ku jàpp bu yóbbu la sëñ bi ba duul kenn moo rëy ab dënn moo yaatab xol mu am yërmande wóof na ñëpp ñi ma lool li ñu doon doon ay ndaw fekk nañ fi gis nañ bi mu fi toogee ak tey lenn ndigal lu booy gisaguñ ko lenn ndigal lu si im faal wooye fat gisaguñ ko ba noppi ñi ma addiye ni def ko riis def ko marché occas def ko kamb ya def ko li wër ko riis ba mu set mu wër ko ni wax leen compte bi gaa yi xam ne dinañ wëq ñëw. Mhm. yaa wëq say koor. Mhm. ñëpp dinañ wëq ñëw. da nga amul fit. Mhm. mun de lu ngeen di denc génne leen ma compte bi. leen ko sëñ Mountakha. bii ni um koor gis fekkuñu fi dara. waaye dara du fi jeex. yoon nag bàyyi bi bu dee lu mu la lu mu la teg nga tegoo. loo teg yoon yoon dina ko tegoo. te loolu yoon ma indi faal tegoo nga ko. tey loo gàtt yoon wi njaboot yëpp dinañ jug ànd doon daan ko ci suuf. sa tàmbali bi musta am waaye ñu ngi ñaan ci barkam Seex Ibra Faal lu fi góor ma sa liggéey nanga taxaw ci ay mbaggam liggéey ko Seex Ibrahima Faal indi ne la ñett nag sëriñ Falilu mi ngi tuubal sëriñ bi ci jataay bu yàgg bi nee na ak kër rek moo nu jàpp de ba yoon wi yeex lool waaye bu nu sañoon ni ko bëgge rek. ni ko bëggee rek noonu la koy defalee kon nee ñu ngi koy tuubal bu baax lépp lu ci nuru njuumte nee na mi ngi koy tuub di ko tuubaale njaboot gi mu àndal ci barkeb sëñ Xalifa Fall Moodu Menda nee na mu di la siyaar nag ngay waajuram di ab sëriñam di léppam nee na amul dara xamul dara it. mënul dara it léppam nee na léppam moom Sëñ Ablaay moom sëriñ bi la sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda ndax waajuram wa dongom ba sëñ Xalifa Fall Moodu Mbenda yaakaaram jëpp doodul woon lu dul topp sëriñ bi rek fas ko yéene liggéeyal nee ba am ci loolu la ko nàmpatal nee ñu fas yéene see jéem jaar ñoom ñii nee kon faal nga ñaanal leen ban man loolee. kaddu yi mu yëkkati nag. nee daa mag ci kër gi rek. di seen jëwriñ. waaye mi ngi koy wax ci kàddu njabootu kër sëñ xalifa Fall gépp muy rakk yi ndey yi nijaay yi ak taalibe yëpp ak soppe yi ànd ak moom. nee si ak bëggam daal fa al. suñu bëgg ñun ñëpp. mooy sëriñ bi. yàlla fi yàgg tuwér. ak képp ku ne amiin. nee na liggéey bii nag. nee li ma ci wax doy na sëkk. ndax mënee su ta lim lim fi indi ndax lépp lu fi indi nit indi na fi lu kopp fuuf boole ko aku dal kon nee ñoom lin indi nee du jar ñu ci jaar xanaa kay dafa mënta ñàkk rek ñi nga xam ni ñooy dongo yi bëgg lu baax bëgg koo jëfal sëriñ bi jël seen ñax ak seen lépp teg ko ci ab loxoom la Seex Ibra Faal waxoon ni donga yi dee leen leen laaj lu am ca di ko def fu nuy gis nee lool rekk tax mu ànd ak ñoom bëgg koo indi ba ci sa kanam faal nga teg ko bët ñaanal ñu ñaanal murit yëpp bu ñuy dellusi waat déwén mu gën a yaatu faal baa ñu defe ko ni ko bëgg yow ndax ñoom ñii seen bëgg gépp mooy Seex Ibra Faal rek moom la ñuy topp moom la ñuy wër moom la ñuy xañtu ci Seex Ibra Faal moomee mooy si am di Faal Modou Mbène mii toog kon yàlla fi yàgg loolu te ami nee du moom du donga yi du kenn sa rakk ju baax ja te gore sëñ xalifa faal moodu mbenda moo liggéey lii lépp bàyyi ko ci ab loxoom ni ko yeggale ko ci kanamu sëriñ bi kon liggéey baa ngi noonu nee na mi ngi ciy teg téeméeri junni sëñ falilu faal ñett nag yii bëmmu waaye nee téeméeri junni yi moo ko ci rek ab siyaar sëñ bi yi soxna Tamba Fall sa doom ji nekk ci aliya moo fa nekk dafa liggéey Cheikh Fall mi ngi ni toog ñëwoon na fi daaw indi woon fi ñaar fukki junni ak soppee Cheikh Fall yi mu àndal tey jii nag mu dellu si waat indiwaat fanweeri junni kon liggéey bi yokku na Fall ñun daal Fall ñu ngi sàkku ci yow yow na nga fi yàgg rek te ak sa njaboot gépp mooy njabootu Cheikh Fall gi rek nee bu noppee nag ñaanal ñu rek moom dong yëpp moo nu gën a xam. yaa nu gën a xam. li war fi ñun. nee sàkku dara. ay dongo rek lañ bëgg a doon. nee lim si nag. moom njabootu sëriñ bi. ak ñi ànd ak man ñëpp. ak soppe yëpp. fas yéene doonaat ay taalibe. yu dëggal. te dëggu. fas ko yéene liggéeyal. fas yéene doon ay jumtukaay. fu mu ñu jëmee. foofa leen jëm. wutiwul dara. soxlawul dara. bëgg gépp suñ bëgg gépp mooy dab sa bëgg gi la sëñ Fallou Fall di wax ñun de lépp lu nu metti ñun ñii mooy ñàkk man sa bëgg nee bu nu mënee sa bëgg dara métti lu sëñ am di kon dimbali ñu Fall yàgg fi ca biir kenn man sa bëgg gi liggéey soxna Tamba Fall ngaa gi fanweeri junni sëñ am di sëñ Ablaye Fall a ngi nii ci say loxo amul mënul xamul yow la am xamul kenn Fall kenn ku dul yow mi ngi nii say loxo. noo ngi ñaan nag ci darajey maam Cheikh Raye Fall liggéey bii na ko fi yàgg indi ci yow. amiin Fall sang njaboot itam nañ yàgg sa kanam. amiin donc yàlla na ngeen yàgg liggéey indi ko fi ci kanam maam Cheikh Raye Fall. ndax lii kat lu wér cëng la. waaw lii du ay nax kat. déedéet. kon yàlla na yàlla guddal fan bi suñu am di wéral cër yi. amiin Fall suñu Ablaye yàlla na nga wér yàgg dong nga ñu wéral cër yi. amiin Fall jëf. sëriñ baa ngi lay nuyu. yàgg mi nga àndal ñëpp tàmbalee ko ci say rakk ak taalibe yi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax yoon wii nga jaar kat yoon la woo xam ne wii mooy yoon wi gën mooy yoon wi baax ndax li ma waxoon sëñ Cheikh léegi doom nga ci kër gi waaye dangaa jaay njureel gi jënde ko ak taalibe loolu ñun ñi fi nekk xam nañ ko te sëriñ xalifa mi nga xam ni yal yàlla yokki ay leeram yéene jëmu amoon ci liggéeyal magam jii di sëriñam yàlla dogalu ko ndax gàttu fan yéene joojee eggale nga jë yéene joojee mm-hmm. sëñ Ablaay eggale nga ko yàgg see rek nit nag bu juree doom mm-hmm. la ko gënal mooy bu fi bàyyi ko lam sémboon lépp mu àggale ko looloo tax jur doom ju baax am solo mm-hmm. ndax sëñ Ablaye mënoon naa demee neneen mënoon naa defee neneen mm-hmm. te bu boobaa kenn du ko wax dara mbaa kenn du ca mën dara waaye nag dafa jublu ci yoon wu baax di liggéeyal baayam bii di sëriñam di mm-hmm. di liggéeyal baayam bii nga xam ne mooy Cheikh Rafal hmm. kon nag sëñ Ablaye lépp loo def sa baay bu ko naw lépp loo def sa baay rek hmm. bu ko nangu hmm. ndax taalibe du jëf di ko naw la ngay def def ko sëñ bi rek sëñ bi dana ko xam waaye na nga xam ni yokk nga yoonu kër sëñ xalifa bu baax yokk nga ko bu baax a baax a baax a baax a baax góor moo tax ma ne la la sa bàyyi yéene woon mhm. te yàlla def yëggalewu ko yow yeggale nga loolee ndax kër sëñ Ablaye Fall kat nii mu toll boo yaafu son du ni mel mhm. boo yaafu mhm. kon kër gi nii mu toll di mu to toll waaye nag nii mu toll yaa ko ni tollal gone nga nag waaye am nga jom lool gone nag bu amee jom rek mhm. dana gudd fan dana baax kon nag sëriñ bi sant na mhm. gërëm na la yaag mbooloo mi mu ngi leen di ñaanal mhm. fan wu gudd ak wér ngay yàgg ànd ak sa rakk yi ak sa taalibe yi ñi nga xam ne yaay seen jëwrin sëriñ baa ngi ñaan. amiin ngeen yàgg fi te yokk. amiin Fall ci barkeem moom mii. amiin Fall jërë ngeen jëf. jërëjëf man ngeen a tàllal. sëñ bi ñaanal leen ngeen delluwaat ci. tàllal ñëpp tàllal. kon nag ñëpp tàllal seen loxo. sëriñ am Fall a ngi ñaan. loo ñaan ma nangu ñaanal. soxna Tamba nee na ñu ngi sant soxna Awa Sall. jàmbaara lool ci liggéey bi. sant suñu nijaay sëriñ Bada Diop ak sëriñ Cheikh Diop. ñëpp raayoo.